moo tax nag ñu reetal mooy jéebaane. mooy jéebaane am picc la moo xam ni. bu gisee jaan xam ne mën naa lor nit ñi mu mënta rey jaan waaye day taxaw ca kaw di sab di sab di sab di sab ba ñu mën a rey jaan ñëw rey jaan hmm. picc moom la ñuy wax reeteet moom day reeteet bi nga xamee ni daaw hmm. dañu toll ci jub si màggal gi hmm. ndox manqué ñun li ñu ci boole ñun cosaan yi laa lay wax dañoo dëkk Madiyaana ñu daan wax Madiyaana Marwayaana fanweeri at fu bari ci Madiyana daj duñu am ndox am association fu nekk tudd ànd taxaw Madiyana mm-hmm. jug def treize million ci ndox mi mm-hmm. avant loolu def nañ ay xool nañ ndax forage lañu war a wuti ñu ni déedéet forage yi doy na mm-hmm. nañ am réseau bu normal ñu gis ni euh, am na tuyau bu nekk ci jóge porte xonq yi ñëw ba ci euh, trente bi diggante dox diggante jannatu ak Madiyana tuyau boobu taxawe na ñetti forage ndax ñetti forage may nañ ko dox ab tuyau 160 la mm-hmm. ab 200 jox na ko ab 160 ab 300 euh, maam ñetti ñetti forage may nañ ko mm-hmm. ñu ni buñ ko dugalee Madiyana booleeg tuyau 200 bi jógee ci forage bii ci yoon Daaru Mooti mm-hmm. nga xam ne moo ñëw Madiyana kon ñun du ñàkk ndox ñu investir ci xaalisu askan wi téeméer téeméer lañ def dajale ko investir ko ci 13 millions di am ndox mu doy yàlla dogal ñu jub màggal gi weer ndox mi coupé te ñun xam nañ ñaata wan moo nekk Madiyana xam nañ yi ñuy jox ndox fi ñu jóge li feeg ñi ngi dox forage bi fonctionné rek ñun ko am ndox war nañ koo am ku ko amul war nañ koo am ñu gis mu taxaw ñu xam ni y a problème ci suñ kuréel booba an taxaw ma Madiyana booba almaxro si amagul an taxaw ma Madiyana daal di jël ab équipe boole ci ay premier ña ngi ko jiite woon ñoom premier la technicien la ak Magaye Diaw sunu coordinateur ak Baye Got la ak Ibou Bousso bokk ci ndaw ñi wut ay gaskat fay leen journée bi ñu dem vérifier wan yi dox suñu diggante ak forage yi vérifier gis ci lu ma juróomi wan yoo xam ne dañ koo tëj. ay wan tëj nga xam ne moo ñu tee am ndox ñun ñu ngi doon am ndox waaw foofu laay euh, baral mu gaaw rek biñ ko biñ ko gisee ñu foto ko Euh, adressé ko sëñ Bas def benn audio ni audio bii dañoo bëgg ñun mënuñoo dem sëñ Bas waaye koo mën a fexe ba sëñ Bas gis ko rek fexeel sëñ Bas jot ci audio bi audio bi xas midi sëñ Abdoulaye Habib bi Touba ci kanam woo ma téléphone Mor laa ngay ma ne ko Mbàkke mu wuyul sëñ Bas dañ fa jullee takkusaan ma ma daal di jógee kër sëñ ba ma ne woon daal di ñëw boobu ñaari fan a dox ci màggal gi. Mm-hmm. avant loolu na ñun wax nañoo Moussa Faye Dieng yi maaw ndox mi arrêté na te lu mu arrêté. dinañ ko xool nangam nangam waa maaw waa Ofor defuñ ci dara luñ ci war a def. ba màgg des de jours ñu def loolu sëñ Bas woo ñu ñëw ba ci kër sëñ Touba gi sëñ Bas woo monsieur le maire Abdou Lahad Ka moo tax ma leen ci tuumaal ñoom Abdou Lahad Ka ak sous ak Maawu Rahmati waaw mu ngoog bi Maawu Rahmati ci la bokk parce que comme xam na li xew ñun arrêté nañ xam xam na ko wax nañ ko ko defu ci benn saafara bi nga xamee ne sañ Bas wax nañu euh, woo nañ ñu explique wax lañ waxoon. wanee photo yi ñu gisoon. sëñ Bas woo woo monsieur le maire boobu mi ngi kër sëñ Touba ni ko Ka mot laa ñoom ñii kat nee na ñoom dañoo gis ay wan yuñ tëj man sax bokku moon ci équipe ba demoon lool gis ko. waaye ñoo leen yabaloon. bi ma waxee loolu ma ne ko ñoo gis nañ ko. monsieur le maire bëgg a wax sëñ Bas ne ko moom daal ay sabotage nangam ñi bëgg a yàq sëñ Bas ne ko lool bakkan lay laaj. sëñ Bas porte parole ni ko bakkan lay laaj maa ko gis moom bakkan lay laaj. Ah. yaa yore maire bi. jugal jënti ko ñaari fa ndox ci màggal ndox daa war a am ab laxaat kon ne ko kon xaaral ma taxawal ak kuréel ñu dem lijjanti loolu sëñ Bass ne ko bul taxawal génn kuréel ànd na ak moom responsabilité bi nga yor ci dëkk bi mate na ko dem taxaw ko saafara ko ab laxaat ga daal di jóg ñu ànd muy day dem arrondissement jëli sous préfet ñu dem fekk fa sous maa ngi ci yoonu gaa daaru Jolof ci benn activité di liggéey ci wàllu ndox mi wàccaayu màggal geeg yooyu daal mm. préfet du am jot laaj ko kon ne ko kon nañ daje ci forage ba ci yoon daaru mooti ndax ñii kat ne nañ gis nañ ay wan yu ñu tëj ci oto bi Moussa ay dawal maa nekk ci ginnaaw ab Lahad Ka nekk ci kanam ak garde corps Abdou Lahad Ka bi ba bëgg a minimiser lool ci biir oto bi maa ngi dëggalaat sama bopp ci ni wan yi dañ koo tëj buñ ko tijjee dëkk bi am ndox ñu dem euh, bi ñu agsee ba kër Sëñ Tuuba Abdou Lahad Ka ni moom mënut a dem te sëñ Bas ne woon na ko am na lu ñu war a waxtaane maa ak yow waaye lu mu guddi guddi du ma ñibbi dinaa la xaar ba nga ñëw kon sëñ Bass boobu dégagé na responsabilité lim fu mu war a taxaw fépp taxaw na fa ab laxat ka ñu ñëwaat ba kër sëñ Tuubaa mu ne circulation bi dafa bari te am naa yu ma war a lijjanti fii kër sëñ Tuubaa mënatumaa dem boobu man maa ngi dox maa ngi taxaw ak dëkk bi ni xati amu benn pexe pour pour dem ab laxat ka génne ñaari saa bu ma waxee dinaa ko leeral génne ñaari junni jox ma ne ma am paas ci mairie bi la yor war nañoo mën a jox sax ay oto ñu dem dox yi loolu ah. booba itam su poos matiwu ko ñu jël taxi fay ko 7000 francs wàcc ca wetu forage ba ca magasin Baye Dame hmm. la ñuy gaaw gaaw bañ àggee fekk nañ sous-préfet ñëw fa ànd ak mut jóob jawbe anañ ki gis wan yi ñu tëj ñang ni bëri ni ko maa ko gis <laughs> mënu ko duggal mu ëpp bunt bi mu dugg mu dem suñ gaa yi jël taxi topp ca yaakaar ni ca forage ba lañ jëm wala dañuy xooli wan ya hmm. ndax ñoom bëggoon nañoo dugg sax ñu leen soxlawuñ leen kii lañ soxla daal di tourné ak moom yóbbu ko police ma taxaw ci forage ba vingt deux heures suur boobu def naa sa benn kii may woo ñan mënu ma ko jot ndax boobu mi ngi police gannaaw bi laa ko woo mu ne maa ngi nii kuréel léegi la ma gars yi soog a bàyyi dañ maa ko ndax lan mu ne sous préfet moo ne nañ ma téye ba màggal di jàll ah ci dénoncé waaw nañ ma téye ba màgg di jàll nee na nag commissaire ne ko kii du ma ko téye nee na xaw nañ maa pamte pamte su mu sama yére nangu sama téléphone du ma ko téye kii li mu wax nit dañ ko war a gës gëstu ñi ko def lañu war a téye te effectivement loolu moo war a am. mais mais mais euh, sëñ ñu dem ba li nga expliqué dafa garaaw ñu dem ba daanaka ñaari fan des. ñaari fan moo des ci màggal gi. ñu tëj ay wan yu ñu gis te ñun wan yii ma la wax mooy yi ñu gis ñun. yi ngeen gis am na yoo xam ne ñi jox diggante boobu la vérifié kon est-ce que mëneesul jàpp ne ñàkkum ndox mi ci dëkk bi est-ce jàpp ne ñàkk ndox mi yenn saa yi day war maanaam tëju ay wan dana. kese loolu rek la du leneen Ah, moo ne dañ ñuy tegal nan ñu forage yi moo paan nangam nangam courant amul. <laughs> lii daal ay fee la yu ma lay wax yoo xam ni ma gis moom bakkan lay laaj bi mu amee ba ba loolu jàllee monsieur le maire ba jàppee ko yóbbu ko affaire mujjut fenn ñu màggal ba ca gannaaw su bëgg man nag bis boobu def naa benn kii ni noppi naa ci li ma mënoon lépp def naa ko wax naa ba sëñ Bas jox ci boole ma ab Abdou Lahad Ka saafara wuñ ko mm-hmm. ca gannaaw su bëgg sëñ Bas mbul Mm-hmm. ak Baye Amadou Xadim Jaxat yàlla na yàlla dolli ay leeram mm-hmm. ci Touba Ca Kanam la ne ko di jàmbaar lool dox ci ay jéego ba woolu na man Mourtala ak Balla Gaye mi jiite ànd taxaw Madiyana ñu ànd ak sëñ Bas Mbul dem sëñ Muntaxaa mm-hmm. sëñ Muntaxaa li li mu xat-xat màggal gi day rey bitim réew ñu doon siyaare booba sëñ bi danañu jël leen seen waxtu ngeen leeral ma lépp li nekk ci ndox mi li ngeen ci xam rek laa bëgg ngeen wax ma ko ñu leeral ko liñ ci xam mu ne ñi tëjwaan ñi nag laa bëgg a xam gëstu leen ko lu ngeen ci xam ngeen wax ma ne ko sous-préfet xam na ko laat ka xam na ko Moustapha Dieng xam na ko waa Ofor xam nañ ko mënuma lu tax ma ne ko bii nga xamee ni gis nañ wan yi wax leen ko sëñ Bass boore ñu ñu war a dem saafara ko tijji ko ñang mi ne maa ko gis dañ ko jàpp yóbbu nañ koy dañ koy téye kon kooku ki war a saafara bu defee loolu bëgg bëggul mu saafara ma ne kon wax naa sëñ boobu ne ko li wér te wóor mooy ndox mi dañ koo téye wan yi lañ téye te buñ ko bàyyee askan wi jot ci sëñ bi na ñëw sëñ bi yëkkati téeméeri junni jox ñu loolu yi ngeen def ci Madiyaana man mii ngeen koy defal waaye digal naa leen bu mu yamati Madiyaana na ngeen ko yaatal ci dëkk bépp lu ngeen gis ci lu bokkutoon noonu ci ndox mi ci wànni fépp na ngeen ko gëstu di ko def ci kayit di ma ko indi fii di ma ko yët